monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement nuyu naa la sànq ñu ngi fàttali ci ci commission yi que monsieur le ministre da ne de toutes les denrées l'eau est la mieux contrôlée ma bugg a fàttali ñi ñuy déglu ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk que le 4 novembre 2022 dama déposé ci table assemblée nationale une proposition de mission d'information à la Seine-Eau pour apprécier la qualité de l'eau distribuée, des services aux usagers et de la situation du personnel. Assemblée nationale ne enfin député APR député Macky Sall député Benno Bokk Yaakaar ne ñoo lank ñoo bañ il n'y aura aucune mission d'information à la Seine-Eau donc ce n'est pas vrai L'eau n'est pas la denrée la mieux contrôlée. L'Assemblée nationale refuse au service de populations de contrôler cette eau-là. Monsieur le ministre diggante daaw ak ren bi ñu gisee bind naa la juróomi yoon nga tontu ma ñeenti yoon maa ngi lay gërëm di la sant yow ak say service juróomeel yoon bi nga ma bindul bi nga ma tontu dama la bind benn lettre le 11 mai. mais la Kidira robinet yi xelleetul ndox 11 résultat il y a quelques heures il y a ou trois jours waa Kidira def nañ manifestation bu rëy a rëy pour ne ñoom amuñu ndox monsieur le ministre ñoom duñu jot ndox ba pare factures yi cher cher boo xam ne kenn mënu ko comprendre loolu suñu mbokk kidira yi di dund kañ lay jeex monsieur le ministre lii mooy Sénégal dangay tudd kidira képp kuy camion malien ci yow lay jaar ngay dugal xaalis bu dul jeex amoo ndox monsieur le ministre Ngoundiane juróomi dëkk juróom-ñett weer amuñu ndox kañ lay jeex lii mooy Sénégal dangay tudd jàkk nekk dëkk bi nga xam ne yaa yore mine de basalte bu gën a rëy ci Sénégal nga mun toog juróom-ñetti at te doo am ndox monsieur ministre gore yàggul trop amuñu ndox ba armée française di taal seen gaal di leen yóbbul ndox lu ko waral kañ lay jeex lii mooy Sénégal da ngay tudd gore ñuy bàbbeeku fu nekk ci àddina bi di ñëw di la seet si yow gore ngay dugal xaalis bu dul jeex ngay toog te doo am ndox mbokk yi léegi mu jeex léegi mu jeex 24 février incha allah 25 février incha allah mu jeex Sonko cinquième président des millions de parrains pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye